remercier waa LONASE ci ni ngeen ma ñëwee seet nii ci sama cantine bu bees bi ñu soog maa jox ci programme xëyu ndaw yi yàgg naa di dégg ne LONASE moo ngi jàppale jeunes yi ci xëyu ndaw yi mais kenn nettaliwuma maa ci teg sama bët te seede laa ci ma ñëw ngeen jox ma attribué ma kiosque bii ci sama koñ Sali Daaru Salaam fii ci Sali dama doon defan commerce bu ndaw sama sama kër sama kër dama doon jaay ay dàllu dàllu ngaay yi foofu laa njëkkee yoroon benn cosmétique bu ndaw dafa demoon ba doxatul woon noonu du coup ma dégg ne ah Lonase moo ngi ci xëyum ndaw yi ma ne ah xaaral ma dem tenter fa sama chance yàlla baax na noonu laa ñëwee Lonase. dam dama déposé dama déposé ñu ñu wax ma papier yi ma war a fournir papier yooyu noonu ma dem fournir ko yëpp ma yóbbuwaat ko direction jébbal leen ko. léegi de temps en temps dama daan toog di woote comme ndaw rek kuy ut liggéey damay woote ma ne leen ah mbaa fàtte fàtte woo leen ma ñu ne ma déedéet ñoo ngi ci yow ba xëy xëy benn jour rek ñu woo ma ñu ne ma ah li nga bëggoon am na ma ne ko ah sant yàlla. man la Aïssatou Bola Gadiaga maa nekk fii nii ci point de vente bu bees bi nekk fii nii ma représenté zone bi depuis ba ma nekkee fii ba tey moom ça maa ngi gis avancement et tout presque 15 jours fi am daal. dama dama déposé. dama dem dama bind sama lii ma déposé après ñu lii ma man maa waaw ñu jox ma kees man maa demandé pour ñu jox ma kees gi ma jaay ma ma jaay loo naat franchement moom ñu ngi jàppale jeunes yi na parce que léegi xale yi ku ci nekk mu ngi bëgg lii pour lu mu amal boppam te ku bëgg a lii tamit ñu ngi lay jàppale ñu ngi jàppale jeunes yi nag gis naa ci jeunes yu bëri ñu ciy liggéey. jeune bu ci bëgg a liggéey rek mun na dem euh, jël bind lii CV am déposé pour. pour euh, pour liggéey LONASE ñu jël ko et tout moom moo gën ngay dem di duggu ay gaal di def moo xam ne moom affaire kenn doo comprendre. aujourd'hui nous sommes sur un point de vente à Mbour à Saly et comme vous le voyez derrière moi donc c'est un point de vente euh, qui rentre dans le cadre du programme Xëyu Ndaw yi euh, du projet des 1500 kiosques initié par la direction générale et euh, comme on le dit weddi gis bokku si. et j'invite aussi les commerciaux à être sur le terrain parce que le DG les a dotés de moyens. Donc vous avez vu récemment, on vous a donné des motos pour être sur le terrain. On a donné aussi des tablettes pour mémoriser les inspections du réseau pour être plus professionnel. Donc ce qui reste maintenant, c'est que nos commerciaux descendent sur le terrain et essayer d'encourager et d'accompagner les vendeurs. C'est comme ça que nous pourrons vraiment ensemble booster nos chiffres d'affaires et rester sur le focus de décembre 2023 et euh, atteindre nos objectifs comme on l'a fait l'année dernière. jigéen ñee ci ëpp ndax xam nga ne ku ne xam ne ne kër yi neexatul léegi ku jàdd ku jàdd Lonase sa lépp neex sa kër dina neex macha allah sa jëkkër dina la gën a bëgg dina la a teg palaas lépp ci Lonase mos naa cee gagné moo macha mos naa cee gagné euh, cent cinquante mille te boobu macha allah ba may dem marché ñetti téeméer laa yor ma jënd ci café ak beñe li ci des bariwul wekket ma ne xaaral ma dugg Lonase Lonase teral ma laf cet leen na Lonase yàgg di leen wax ne daal Lonase moom macha allah amul naxaate Lonase daal ku jàppanteeg moom sa kër dina neex sa jëkkër dina la bëgg di nga tabax sa kër.